mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah yéen ñi safoo bàyyi xel Sénégo Sénégo TV Sénégo point com tey nag ñoo ngi ci état bi nga xam ne mooy Ohio nekk ci United States particulièrement fi nga xam ne moo nekk Cincinnati tey nag ñu ngi ñëw Touba Darou Salam Store fekk fii um, Adja maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar ba. Adja tey ñu fekk la fii ci Cincinnati di Hamilton Avenue ci boutique Touba Darou Salam tey bu ñu ñëwee boutique Touba Darou Salam gis nga bi ñu defee visite fekk nañ ci ay produits yoo xam ne en 100 pour cent sénégalaise la. Euh, tey est que mën nga ñëwaat ci produit yooyu naka ngeen def ba am ko ak boutique bi. Euh, maa ngi lay nuyu d'abord euh, di la siyaar di la wax produit yi ñu ngi leen di jëlee senegal dañ leen di ship mu ñëw maanaam dañ leen di dugal cam conteneur chargé leen après indi leen fii mos lu ci ëpp noonu lay demee am na ci yoo xam tamit dinañ leen jëndee fii. mais li ci ëpp daal ñu ngi leen di jëlee euh, Sénégal parce que comme suñu cliente euh, ay africain lañ sénégalais lañ te yooyu lañ gën a yittewoo soo li ci ëpp dañ leen ko dañ koy jëli indi leen ko. yan genre produit ngeen di shibee Sénégal ko fii. lépp lu sénégalais di soxla. ba from potu meew. ba ci njàmpe ba ci ngeer ba ci loo xalaat. ba ci jet bi sax dañ koy indi tàngal bégee sax am na waaw lépp a ngi fi daal lépp rek lu ñu yittewoo maanaam ba ci gën ay yooyu yëpp daal ci produit yi nga xam ne moom la sénégalais yi di gën a utiliser di euh, seafood yi est-ce que mën nga lim yan ak yan yan fii waaw yéet kecc keccax euh, paañ yooyu yëpp yëpp lu ñuy teew ci togg ak euh, surtout ay araw ay sunguf cere yooyu yëpp yëpp dañ koy order from uh, Sénégal ci uh, GIE yi uh, wala ONG yi am na ñu ci liggéeyal ñoo xam ne dañu koy defaral paqueteel ñu ko boole ci def ci inspiration beeg yëpp parce que yooyu dafay am solo fii dëkk bi dañu dañuy soxla xam produit bi ba kañ ba kañ nga ko maanaam expiration bi quoi date daf ci am solo soo su ko defee ñun bu ñu koy order foofu dañuy bëgg ñu paqueteel ñu ko ba mu rafet xam nga defal ñu ci date ak yëpp daal mu sell set xam nga waaw moso lool la daal pour dugal fi produit yi ci yenn yoon ngeen di jaar bu dugal ko bandi ci réew mi dañuy koy ship conteneur da ngay teg conteneur Sénégal chargé coono yi nga ciy daj parce que dañuy rassembler produit fu ne sometimes nga dem ba ngaay dem ay panier wala xam nga diversité produits yi ñu soxla dañuy dem un peu partout ci euh, Sénégal yëpp recruter li ñu bëgg yëpp bu ñu ñëwee ba Dakar teg conteneur bi commencé sol am ñuy jël ñu solal ñu ak tout après nag ñu ship ko bu ñu ko tëjee mu ñëw bu ñëwee fii tamit euh, dinañ jël temps parce que bu ñëwee day jaar costume mooy euh, da euh, douane bu bu yeggee costume dañ koy bëgg seet saytu ko parce que dafa am yoo xam ne dañ koy bañ fii yooyu dafa am tamit noo koy solee ci conteneur am noo koy nëbbee ba nga xamante ne ni duñ ci teg loxo bien que du dara loo xamante euh, lu yoon di tere wala dara mm. mais dafa di da comme américain dafa dafa yittee la lekk soo ñoom bu ñu sañoon ba sañ sax lekk du fi dugg te ñun tamit lekk dafa bokk ci li ëpp demande client yi dañ koy indi soo moo tax buñ koy buñ koy indi ci conteneur dañu fexe ba paqueté ko euh, denc ko denc boo xamante ne ni duñ yomb a gis da xamante ne bu yegg seek jàmm ñu mën ko ñoom bu ñu defee seen liggéey rek après ñu problème duñ la ko mettil mm-hmm. nga fay li nga war a fay def li nga war a def ñu dili sa yëpp nga jaay. est-ce que importation boobu euh, autorité sénégalaise yi yombal nañ ko ci yéen comme nga war a jëlee foofu benn marchandise yëpp ko ci conteneur indi ko. Euh, sama gis-gis de man I don't think ne ñoom ñu ngi ciy def dara parce que moyen yow yaa koy provide yaay jënd sa yëf yaay fay sa conteneur yaay fay mu dem kon euh, vraiment. gisuma ñoom luñ ci buñ ci dimbale woon tim ñu jël parce que bu fekkoon ne xalaat nañ am nuñ ko xalaatee ba dinañ ne soit yow mii indi conteneur dinañ xool maanaam di nga am benn réduction par rapport ak prix waree ba xam nga ndimbal bu tuuti nu mu ñëwee rek day baax mais yéguñu leen ci noonu. ci produit yi ngeen faral di jënd la plupart euh, ci ay GIE ñoo koy defar. comme femmes yi nga xam ne ñooy defal sànqal yeek araw yi ba ci euh, caakiri yi. ak yenn cere yi waa ay ay ay femmes ñoo koy defar am na ñi comme ñi defar cere yi am na ñu nekk euh, Touba ñoo xam ne dañ yooyu loolu rek la def defar ay cere araw am na tamit keneen suñu beneen supplier kooku def naa ngeylum la tudd moom dafay euh, daf ñuy supply yu bari ci yooyu tamit buñ ko waxee ni ñu ko bëggee bisaab bi euh, ak yooyu bu ñu ko waxee ni ñu ko bëggee dina ko defee ni ñu ko bëggee ba nga xamante ni dinañ ci jot ci jaam. Mhm. ci jaay beeg jënd beeg jaay bi fii yan xeetu client ngeen di faral di am américain yi wala sénégalais yi wala particulièrement africain yi. am nañ yëpp am nañ ah, ñëpp am nañ ah, sénégalais yi am nañ africain yi am nañ américain yi ah, parce que. tuddati ak amin yëpp xeet yëpp quoi parce que ñoom ñëpp dañuy am yu ñu fiy soxla américain yi bu ñu demee ba gis euh, comme euh, chef bëri ku ne xam ne ñoom dañ koy yittewoo lu bëri mooy karité bi soo lu bëri la dañ koy dañ koy jënd si fii ak cuuraay yi yooyu yëpp dañ ko bëgg ak parfum yeeg yu bëri daal am africain yi tamit ni ki noonu dañu am yoo xamante ne suñu produit yoo xam ñoom dañ koy consommer te ñun tamit yenn saa ñu am ay produits yoo xam ne euh, c'est typiquement ghanéen wala mu nekk ivoirien xam nga yooyu yëpp daf fii am tamit soo euh, basically ñëpp la ñuy recevoir. Mm-hmm. comme boo nee cuuraay ne karité ak américain dina xaw a jaaxal yenn sénégalais yi est que xam nañ ñu koy utiliser. oh bu baax ah américain yeah dañu xam ne ñuy utiliser carte xam nga from ak internet bi dañu xam ne carte dafa bëri vertu. ak ni muy def ci yaram te ñoom all the time bu ñu gisee dañuy bëgg parce que dañ naan ñun dañu am skin bu rafet suñu rafet so dañuy ñuy follow ñoom xam nga peuple boo xam ne ay nit yoo xam ne lañ dañu bëgg dañu bëgg a culture jaamu parce que comme ñoom xam nga bëriwulewuñu culture so dañuy gaaw a adopté culture cuuraay ni ki noonu dañ koy use nice dañ ko bëgg parce que ñoom dañuy cuuraay fa dañuy use incense burner yi dañuy use soo xam nañ ko quoi du lu bees ci yan yan genre cuuraay la ñuy faral di ëpp lu ñuy jënd. Ah, goowe bi. parce que sometimes nit day ñëw ne ma man de bu ma toggee sama kër gi comme ñu ñëw sometimes ñu ñëw ne ma dama bëgg togg ceeb ma expliqué leen ni ñu koy defee léegi su ko defee ñu ñëw xam ne ma oh keroog bi ma toggee sama kër gi ni mu xeeñee mm-hmm. am laaj yow loolu am na lu ci gën soo ma la proposé gooy boo ko ñamee benn yow mm-hmm. dangay dellu siwaat yu bi laaj oh bi mu ko taalee cu xet bi yëpp a dañ xam nga noonu quoi. incha allah la noonu. Mm-hmm. d' accord tey yéen ñu nekk fii yore boutique euh, du du lu jafe parce que réew boo dem boutique yi fa daan nekk la plupart ay doomu réew ma la ñuy doon lu dul Sénégal ak euh, Guinée yi tey fii yéen bu ngeen fi nekkee jënd beeg jaay bi est ce que yomb na ci yéen ak ñoom. Mm, maanaam. maanaam jënd beeg jaay bi ndax yomb na seen diggante. Uh, comme ñoom ñu ñëw découvrir boutique bi ñëw jënd. seen ñoom américain yi waaye. oye oye like I said maa la koy expliqué sànq ñoom dañu nekk nit yoo xam ne dañu bëgg brassage de culture dañu dañu dañu dañu di xam nit li ñuy dund dañu sob quoi nit yu sob lañ. Mm-hmm. soo ñoom esprit dañu koy dañuy nekk ñun nice. Mm-hmm. Mm-hmm. à ci butik bi ci yenn façon ngeen di faral dañuy def transfert d'argent fii. moslaak mm-hmm. loolu la gën a yëngu man comme man département boobu laa nekk. Mm-hmm. ci euh, yónnee xaalis bi dugal ak génn bi. nañ def yëpp transfert yi am yëpp Wave Orange Money euh, ak yeneen ak yeneen. dañ koy def. d' accord à part ça ban message pour lancer ko doomu sénégalais yi la doon seetaan. ah di wax euh, gouvernement bi xam nga seen euh, seen ndimbal du du euh, du loo xam ne citoyen mën na ko ñàkk sa citoyen fu mu mën a nekk dafa dangay am waru garu di ko toppatoo ak di ko seet ak noo ko mën a yombale parce que ak lu mën a xew ñun li ñu fi bàyyi moom mooy liggéey pour dellu suñu réew ak am lu ñu yóbbu so lu ñu gën a mën a gestu rek day gën ci ñu bu ñu dimbalee ba nga xamante ne ni après bu ñu doyalee fi bu ñu ñibbee mën a casé wu nekk si jàmm parce que lii du loo xam ne moom lañu opté nekk fii so bëgg nañ retour ñu ko facilité day gën a neex you know ak at the time tam man comme ci envoyé laa nekk bëgg naa nga bàyyi loo leen xel ni ñuy yónnee xaalis parce que sama client chaque jour dañuy complain boo yónnee nit xaalis ba pare dootoo ko dégg yaa ciy topp di ko laaj ndax jot nga ci mm-hmm. loolu est rafet na bu la nit yónnee yaa ko war a wax xanaa jot nga ci mais moom mu toog baat la di wax su ko defee dañuy damay am retour yu bari man de wa alu seetal ma diw wóone naa ko jot xaw ma ndax jot na comme jotu ko mm-hmm. te am na ci comme transfert wave mm-hmm. mënuloo xam ndax nit ki jot na yónnee nga ko xam nga dem na mm-hmm. bu la confirmé doo ko xam soo ma leen di ñaan rek ngeen gën a bàyyi xel ci loolu bu ngeen jotatee autorité yi géré wéef nga koy yóbbante nit yi recevoir sénégalais lam daal mm-hmm. bi ma yónnee bi ngay yónnee bi keneen di yónnee mm-hmm. buñ la yónnee wooteel ne jot naa si boo ko booleeg ñaan sant la loolu rek lii laa wax <laughs> kon yu am kon nag naka Sénégalais yi bàyyi xel. waaw loolu waaw loolu kii la cri la. waaw mhm. ah, parce que dama koy jot all the time. so te xam nga ku ne li ak li nga xam nga bu ñu waxtaanee dëgg-dëgg. Mhm. moo tax ma naa la ko doxaala rek nga yóbbaale ko. d'accord merci beaucoup. kon kontaan nañ lii ngeen def sax xam nga li li wolof naan dompat ci sot la bokk loolu ngeen def ni mhm. ndax lii ngeen def may ngeen ñu visibilité may ngeen ñu. ñu mën a exprimer li ñu bëgg a xam kon ñun tam ñu ngi leen di jëfal di leen wax ci kaw ci kanam Sénégal ñu tamit ñoo ngi lay jaajëfal jaajëf am ah, leen merci ah,